góor bi ñuy wax Ibrahima Dramé. Ibrahima Dramé. waaw waaw. 1992 la judd. 92. waaw. nekk étudiant cinquième année droit université bu Dakar. waaw. le 15 novembre. la génnoon ci guddi gi ne maa ngi dem jënd crédit te ñëw ba léegi suñu. maa ngi dem jëndi crédit. boobu seen kër lan seen kër. man maa ngi nii man fii laa dëkk Canada. Canada waaw mais moom mi ngi sama kër yaay fële ñàgg. waaw ñàgg. waaw léegi affaire bi fan la ñàgg la xewee ñaata la xewee. waaw léegi moom yéen da nekk ci kër gi. mu jékki-jékki ne maa ngi dem jënd crédit. moom fan yooyu xam nga comme dëkkuñu sama yaay daf feebar. Mhm. dem Casamance fajuj. Mhm. moom ak euh, sama bi ci ku mu topp. Mhm. ñoom ñett ñee nekkoon ci biir kër. sama benn rakk bu góor bi kooku maçon la dañu am chantier fële jaww bi. waaw mu dem fa. mu bàyyi leen fa ñoom ñett si kër gi. man dama daan def de temps en temps su ma amee jot ma dem seeti leen ñëw. Hmm. far dimanche guddi bi mu doon dem. Hmm. ay boori trois heures lañ ma woon ma ne mi ngi fii di yuuxu di tëb di tal kenn mënu ko téye. mu ngi fii di yuuxu di tëb di dal. tal. noonu maanaam dafa mekkoon mel na daal mel na kuy daan yéesee. ci bëccëg bi ci man noonu laa bàyyi li ma def ma daw dem ba ma demee fekk suñu wet. am na suñ benn dëkkandoo boo xam ne day def faju olof comme ñoom ay xale lañ mënuñ ko te ñoom ñaar gii rek ñoo fa nekkoon mënuñ ko téye ñu ndaw dem woo ko kooku woo ay xale góor yi fa nekkoon ñu indil ko nee na mu ñu fexe am lu mu ko defaral ba mu ne la man mu ñëwee damaa ñëw rek yàggu rek mu ximali mhm. ma ne ko lan la mun a ma dara jotuma ma lan la mun a mu dara jotu man ne ko lu kaay ñibbi kër ba ñibbee kër yeeg man ne nañ ko may ndox mu dugg si douche bi sangu génn soleere jàpp julli tisbaar sama rak génn bi ne ma tey la presque quatre jours lekkul génnul néeg maanaam su génnee day jàpp duggaat yor kurusam di wér dama loolu daal la fi nekkee ma ne ma su ma ko defaree leen ndékki sax tegal ko day jël plateau ndékki bi pousse ko si biir rondal pousse ko si biir rondal waaw soo ko laajtee mu ne lekk naa bu pare da koy buux siwul buy rool la rek bàyyi ko foofu den hmm. moom moo ak ñaari fan ñett mu gis kaas yi manqué ma waaye su ma la defaralee ndékki fooy teg kaas mu ne ko génne naa ko dina xaw ma loolu sëgg si rool gis kaas yi génne leen sanguwul deful dara man ba mu ñëwee ma gis ko moo ngi tilim ma ne leen na dem sangu mu sangu yére bu mu t bu mu soloon sama rak génn ne ma def na ci moom ñeent fan mu ngi sol benn yére dafa nekkoon nit ko xam ne dafa bëggoon boppam foog fekk yére bu set lay sol hmm. te. da ngay ba nga ne ko mu dem sangoo après. ba mu sangoo ba pare maag sa mbéda rek góor bi nekk caare ba mu sangoo ba sul yére après kooku doxataan ak moom ne ko lan ngay def ba daa nga dangaa jël wirde mu ne ko dafa wirde bu may def waaye damaa yaakaar ne wirde boobu aajowul leen sonalul kenn kooku ba mu ko laajee wér ba mu ko waxee sama rakk góor bi nekk kooku dafa jàng alxuraan ne ne bu rek nga yem amul problème parce que man mii loolu laay def ma a kenn du ko da ngaa ma ne ko déedéet waxuma loolu mm. defaral mu lekk far ma ne ko léegi comme yaa ngi ne fan yii botti woo sa kanam yeeg sa sax ma yëkkati 1000 francs jox ko ne ko lii bu subaa nga dem ci coiffeur nga bort mu ne ma wax mm. bu gunge ma wa taliba ma taxaw ma jël oto ñu bis leen fa suba teel ay huit heures xam nga rak génn bu mu nekkal kooku moo ko mag boo ma ne ma Ibrahima de fanaan ci biir kër ma ne ko luy loolu mu ne ma boom la gungee ñëw jëndaale ay fruits ñaari banaana la ci jënd seddee la ko xale yi kër gi yëpp mu ne mu toog ba si yaa génne ma ne xaaral ma dem jënd crédit te ñu mu ne moom génnee noonu man gisaatu ma ko ci noonu noonu ci noonu noonu gisaatu ma te moom dafa mosoon nekk nit ku réglé dafa musoon ne bëriwul coow même ba mu nekkee xale sax xeexoo yi xale yi di def sax moom daawu ko def sama wetu yaay rek lay toog. léegi moom mu ngi woon université. di def droit. waaw ren la waroo def sax mémoire am. ren la war a inscrire pour mun a def mémoire ba keroog sax mi ngi naa ma ne comme mémoire bi re ay recherche la deux ans lay def bugguma toog di dépendre si yéen à chaque fois dinaa leen dama soxla li soxla laa dina damaa bëgg a liggéey boo xam ne dama siy taxal leen ko en attendant may def samay recherche. ko mën a déposer sama mémoire ma ne ko amul problème. mais nag coow li coow li mooy. dafa commencé woon jël di wér. waaw parce que man comme dëkkuma ak moom. man mënu ma ko xam. parce que sama rakk génn nee na ma commencé woon na ko. léegi sama yaay arrêté ko mu arrêté ba mu defee examen yi ba pare examen deuxième semestre di la jékki-jékki commencé di fattu ci biir nii. man di moom doom ci biir néeg du génn du dem fenn. fekk sama yaay nekk fii dem na Casamance faju ji. moom moo nekk. fa. man xaw dara parce que dëkkuma ak di say. ci biir kenn mënu ko téye. léegi na. dem na boobu ci guddi. tey démb la am 2 mois. ba léegi xamuñ ci lu mu sëriñoo dem naa fa façon salaam bu nekkee nee naa. xamoo ndax mu ngi dund xamoo ndax. fu ma dem daal dañ naan man mi ngi dund mi ngi si jàmm dinañu génneel sarax nangam wala ñu ba démb ci ngoon si ko moomu ci. nga ne nan la tudd. Ibrahima Dramé. Ibrahima Dramé. waaw moom boo gisee nan la mel. dafa njool. Mm-hmm. ñuul tuuti nii. amul yaram waaw. léegi yow sa yaay yëg na que toujours am espoir ne dina ñu wis comme sama yaay daa dem faju wéru demoon na ba benn moment sax mënul woon dox te comme dafa dem foofu di faju ju dafa taxoon ci moom. boo da ngay gën a tiitataay. dama ne bu ko yëgee. danaan kur ko kur day ñibbi day arrêté fajam lu éviter moo tax ma oh magam bëggoon ku nekkal sama nijaay ko woon a wax e eh, dama ne ko de. bu mu ko yëg maanaam sa yaay ki mu nekkal Casamance woo nga ko ba situation mais danga ne ko bu mu ko yëgal sa yaay léegi daal Ibrahima noonu noonu. amoo leen ci moom benn nouvelle. yëf yi ba mu demee ba am une semaine la benn xaritam di waxtaane Dakar romboon ci accès unité 22 rond point 22. accès unité moom mi ngi si oto bi. mu koy woo nee na ko ba gestu ko. moom eh, moom mi ngi si bis muy dox. mais moom xamul woon ne dafa def. ah ko woon ne ñu ngi koy wër léegi après ba mu ko waxee yeneen moromam yi mu nekk loolu lii sa jaar ba mu leen di ko wax ñu ne ko mais Ibrahima ñun dix jours ak nit ñi koy seet mu ne la mais man xaw ma si dara après fi nañ fa dem gisuñ ko. rond-point benn nit ku mujj euh, ñu njort mooy ne mu daal ñoo ko. ñoo ko loolu daal man loolu laa njort. parce que bu nekkoon nit koo xam ne ne moom même. demande universelle fi kenn waree ñëw day woote ne maa ngi ñëw ñun ñii sax dañuy xultoog ñun ñi nga xam ay magam ne ñu nit ki boo demee fenn foo mun ne rek da ngaa war a wax nit ñi ni bërëb sàngam laa ne. moom moo leen doon wax loolu. moo ñu daan wax. tey moo ngi nii dem na wootewul. xamuñ fu mu boo ko wooyee te moom wootewul. wootewul xamuñu fi ñu xamuñ fi mu fee ñun daal ñu mën a dimbali. génne naa sarax bu ne yéreem yi presque génne naa buñ la teetal daal day waxoon nit pour yu bari mi dina la indil yére boo ñu ñu ne defal nii yére bi koy teg dinañu dara dara daal tool nii damaa xamoo sax laay ku ko mën a gis al moom dimbali ñu même bu dee dañ koy faj sax mais nañu bis